assalamualaikum wa ci sky ben deuk ñaar gar plus aéroport tay nak commission bi nga xamanteni ni na ku ci nekk na dal sa kaw tay nak dama ñew di bekk ci ben xalé ñu doon ko xam ci Ousmane Seck ñu daal di doxantu ndank du biir kërëm dama bëgg ñu doxantu rek daal di koy bekk ndank ah, ah assalamualaikum Ousmane. Ousmane nga def. maay fi. yaa ci jàmm. maay ci si bu baax baax. tay émission li dañu sét ci Ousmane Seck. nit ñi di laaj ndax Ousmane am na 20 ans ñi ñi naan ndax am na 30 ans ñi naan am na 40 ans man leen Ousmane amul 40 ans Ousmane amul 30 ans waaye bu ñu yeggee ci Ousmane da nga xam koy Ousmane waa Ousmane naka def. maa ngi ci yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm bu baax a baax. waa nag Thiès Info man Fatou Bintou dama am mission Thiès Info nag ñu koy souhaité joyeux anniversaire. il n'est jamais trop tard. ndax fukki at dafa mel ni chaque jour rek nga def buzz ñu ñëw nag seet si Ousmane Ousmane jugal taxaw <laughs> Ousmane ñaataat nga am. man xam nga vingt et un ans. ah vingt et un ans. Ah, nag day ñëw yu doy waar mu nekk xale boo xamante ne ku ko jàppale mu dem macha allah Ousmane damaa bëgg nga dawal tuuti machine bi ñu xool. kon li ngay ñew loolu la wara andal ah. ci ci ci bi la wara def